Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bés cloche su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous les événements. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi nga xamante ne ni yéen a jàkkaarloog seen télévision Ansar TV di émettre fii ci Touba Mbacké ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci teewlu bi ak seetaan bi mu mel ni ki nag tey ñi ngi suñu invité. suñu invité nag di sëriñ Moustapha Amar Serigne Moustapha Amar jiite mouvement ànd Suxali Mbàkke ñu jox ko mu nuyoo Serigne Moustapha asalaamaaleykum. waaleykum salaam. wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo leen di nuyu di leen ziare bu baax di nuyu waa Ansar TV dale ki nga xamante nii moo nekk ca booba di Serigne Khadim Amar euh, ak képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci kër googu. di am mbégte lool ci waxtaan bi di am mbégte lool itam ci teewaay bi euh, euh, Baye Goumba kon noo ngi lay euh, nuyu di la ziar di ziare képp koo xamante ni yaa ngi safoo Ansar TV ak képp koo xamante ni yow yaa ngi seetaan ñu fas yéene incha allah waxtaan ak yéen incha allah. jërëjëf Serigne Moustapha ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci présentation bi Serigne Moustapha ànd suqali Mbàkke lan moo waral nga taxawal ko. waa ànd suqali Mbacké maa ngi ciy profité di leen nuyu euh, di leen ziar parce que vraiment mouvement la boo xamante ni euh, yàgg na Mbacké yàgg na itam si dëkk bi yàgg nañoo ànd di liggéey euh, liggéey nag jëmmale ko ci seenu askan ak taxaw seenu askan ak liggéey tamit ci social loolu yàgg na ci mouvement bi yàlla dogal itam ñu teg ma ci bopp mouvement bi ñu jiital ma ci mu nekk mouvement boo xamante nii képp ku nekk Mbàkke rek xam euh, ànd suqali Mbàkke di nga xam ne waa ànd suqali Mbàkke am na lu ñu def ci Mbàkke waaye liggéey nañ liggéey nañ itam ci Mbàkke kon euh, ànd suqali Mbàkke yàlla dogal ma nekk jëwriñ ja euh, ñu tudd nag Moustapha Amar ñu gën maa xam ci généralu Mbàkke waaw sëriñ Moustapha comme ni nga ko waxee comme mouvement bi 2012 la woon ba léegi mu mel ni mouvement bi xaw na yàgg 2012 ba léegi yàgg na kon maanaam yéen lan ngeen defagun Mbacke lan bu ngeen taxawalee mouvement bi ba léegi. Ah, Mbacke euh, bi ñu taxawalee mouvement bi def nañ fi euh, lu bari def nañ ci def nañ fi euh, social dañuy yëngu ci sociale bu baax di yëngu tamit ci askan wi di di dox ci askan wi ak li nga xamante ni day dox day jëmale dëkk bi ca kanam lépp loo xamante ni bari na loo xamante ni am na ci dëkk bi bokk na ci ñi nga xamante nii Euh, bokk nañ ci ñi ko waxtaane bokk nañ ci ñi jëf ba tax loolee sotti yu ci baree bari muy wàll éclairage bi yu ci baree baree bari dugg nañ ci dugal nañ ci dem suñu kàddu ba ci ndoxu bi dugg nañ ci dugal nañ ci suñu kàddu ba lu ci baree baree bari di saafarawu parce que ñun tamit euh, nekkuñu euh, mouvement boo xamante ni dañoo toog rek di seetaan wala ñu yàccaaral déedéet dañoo jóg ngir suñu askan waaye dañoo jóg ngir Mbàkke dañoo jóg ngir defar commune de Mbacké ndax dëkk bii di Mbacké nun danoo war a bokk ci ñi koy defar kenn du jóge Fatick wala Dakar di ñu ko defaral kon nun ñu nekk ci dëkk bi rek ñun ñoo war a defar dëkk bi mu waral ñu ñu laxasaayu takku ngir jéem a taxaw ci dëkk bi ca euh, li ci ëpp gis nañ ne ñu ci bari ci ay politiciens dañuy jaar ci kaw askan wi def leen ay escalier di dem loolu nag lañ ne nag loolu day dakk ci dëkk bi wala ci commune bii di Mbacké loolu duutuñ ko nangu ca duñ ko nangul kenn. jërëjëf euh, Serigne Moustapha ñu ngi lay sant bu baax euh, di la gërëm ci tontu yi am na solo kon mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog seen télévision Ansar TV mu mel ni ki ñu ngi dalal Serigne Moustapha Amar di njiitul ànd Suxali Mbacke Serigne Moustapha Amar euh, yaa ngi juddoo Mbacke yaroo Mbacke màgge Mbacke ba taxawal tey ànd Suxali Mbacke mu mel ni ki Macky sàll bi mu fi toogeeg léegi léegi yàgg. bay tollu ci jeexal mandam fi ni ñaari weer sa ko fi wala ñett yow en tant que ànd soxli mbake en tant que président ànd soxli mbake lan nga gis lo xamanteni ni Macky Sall def na ko Mbàkke bi mu fi toogee euh jërëjëf euh, gumba euh président Macky Sall ah def na fi dara ñong koy sante lu fi def lu fi def. waaw loolu la ci lay ñëw ni def na fi dara ñong koy di ko gërëm. Mm-hmm. parce que man bu ma fàttalikoo gis naa fi ay njaal yu mu def jaale na fi Paaleen dugg na fa dem na Daaru Salaam jaale na fa dem na Mbàkke xewar itam jaale na fa yooyu daal gis naa def na ko ñu Mbàkke loolu moom ñoo ngi ko ci sant bu baax ci njaal yooyu. ak gërëm mais na fi ay tali def na fi ay forage def na fi leneen ak leneen kon du ay njaal rek la forage bu mu fi def buñ mën a teg loxo wala ñu gis ko parce que li fii dara doxul Mbàkke dara dox fi état. bi nga xamee ne moom président Macky Sall falu na ba léegi man gisuma lu mu def Mbacke ca Mbacke laa dëkk doomu Mbacke laa Mbacke laa yaroo fi laa maa ngi fi laa jàngee mais gisuma loo xamante ni def na ko gisaguma ko lu ñu mën a teg loxo ni lii président moo ko andil waa Mbacke comme ni mu koy defee Fatick wala mu di ko def dakaar ak feneen ak feneen budget yi ñu fay génne ay milliards man milliards yooyu waxuma lay milliards waaye million sa gisaguma ko fii ci Mbacke boo xam ne dañu président de la République. moom moo fi def ba suñu autoroute à bii nga xam ne da ngay jógee Dakar ñëw ba Touba bi ñëwee tableau bi ñu tegoon mu jëm Mbàkke boo demee tali ba dañ koo joxoñ rek ñi defoon fa tableau boo xam ne Mbàkke lañ ca bind mais tali bi ba léegi wàccul dugg Mbàkke kon autoroute à amul kenn koo benn sorti boo xamante ni am na bu muy wàcce fii ci commune de Mbàkke amuñu manqué nañ fi lu bari caserne sapeur pompier barki dem am na xale bu xëm sama kanam fii ci table caabi mais bi ñuy wootee Touba lañu woo mais avant ñuy ñëw xaw na yàgg xale bi lu ne mënoon ak Fadal dalan ah. mais kon Mbacké waroon na am lu mel noonu ah, euh, ca moom mooy commune bi Mbacké mooy commune Mbacké commune waroon na am caserne sécurité bi tamit waroon naa gën a mën a doy ci police ak gendarmerie ñu taxawu leen taxawaay bu mat sëkk taxawaay bu am solo andi leen ay matériel yu doyo doyo doy pour ñu mën a aar askan wi pour ñu mën a aar dëkk bi moo mais boo demee tey police wala gendarmerie nañ ko defaree sax da ngay xam ne dëkk bi kenn toppatoo ko waaye naa nekk barab yoo ni barab yu mucc ayib la en plus Macky président waroon naa defal Mbàkke ñu moom ci lu fukki ñaar lu ko toll lu ko mais ñu mu ñu benn hôpital bu ndaw mais en tant que ak population bi fi hôpital district de santé ay poste de santé kon Mbàkke waroon nañoo may benn hôpital boo xamante ni bu ñu feebaree danañ fa mën a fajoo sunu njaboot mañ fay fajoo sunuy waajur man fay fajoo mais Mbàkke amul hôpital. pourtant moom ngeen woteel yéen élection yi passé non élection yan. yi passé élection législative yi passé. Mbàkke ah, Macky Sall moo fi gagné. non Macky Sall gagné wul législative Macky Sall gagné wu ko. bien moo fi gagné. Macky Sall moo gagné Mbàkke élection yi. non non non yeewi askan wi ñoo fi gagné. waaw yeewi waa wàllu ak yeewi ñoom ñoo gagné. député yi fi nekk yëpp wàllu ak yeewi ñoom ñoo ko gañee waaw ñoom ñoo ko gañee mais Macky Sall euh, Benno Bokk Yaakaar gañewul Mbàkke waaw gañewul Mbàkke ci élection yooyu nga may laaj ci législative yi Mbàkke gañewu ko kon daal yow jàpp nga ne Macky Sall daal amalul njariñ Mbàkke bi mu fi toogee ba léegi nii defalu leen dara non no loolu moom boo génnoon tey laajte ko waa dëkk bi ñoo naal na defaluñu ah, dara Mbàkke yow fi nga juddoo fi nga yaroo Mbàkke depuis 30 ans ngi nii ci ndoxu xorom la ñuy naan il paraît que tey ndox mu neex mi egsi na Mbàkke te grâce à Macky Sall ko kon boo nee Macky Sall deful dara Mbàkke tamit problème lay xaw a indi. non ndox mu neex mi euh, mais waa Mbàkke ñoo jóg taxaw force la parce que ñun ndox mi ñu doon naan nit waru ko naan suñu soxna yii walla ku ci tollu diggante tey. boo demee hôpital boo demee boog euh, poste de santé ba ñu poste de santé la ñu dañ lay njëkk a tere mooy xorom xorom saa ngi ñu bëgg a rey ci xorom la ñuy añ di ci reer di ci ndékk di ci sangu di ci fóot suñu yére muy yàqu yére bu set yére bu baax waa Mbàkke mënuñu koo sol ndax ndox mi moo baaxut yére sax boo ko ci fóotee benn yoon mu yàqu mais nag biñ xamee loolu am ñoo xamante nii xañ na ay ndawi dëkk bi lañ nekk ay cadre ci dëkk bi boroomi xam-xam ñoo lëkkaloo ngir ànd xeex ndoxu Mbàkke moom biñ ko xeexee am ci ndam biñ amé ndam wa Mbàkke ñepp téye séni facture daane duñ fay ndox lool arrangé wul euh, arrangé wul arrangé wul état dañu téye facture né kenn du fay ndox arrangé wul état mu lénen fi budget bi ay milliards mëna fay fee génn ci ndox mi léegi bu ñëw bu ba ab dëkku lëmb muy Mbàkke commune daan na ñun fayatuñ ndox mais lool état nak dina ci sak pexé lool dama yaakaar ne pexé la mais du pexé mais bu fekkoon defuñu nonu wala kaasuñu ko or que duñu du nu mën a am du nu mën a am lu mel noonu kon dama jàpp ne rek ndox mu neex mi ñëw waa dëkk bi ñoo ko xeex waaye waa dëkk bi ñoo ci taxaw ba ndox mi neex mi di ñëw man loolu laa jàpp ne loolu moo loolu moo nekk quoi. jërëjëf euh, Serigne Moustapha Amar jërë ngeen jëf euh, téléspectateurs yi jàkkaarlook seen télévision Ansar TV. ñi ngi leen di sant bu baax euh, di leen gërëm ci teewlu bi ak euh, seetaan bi ñuy dalal ba tey Serigne Moustapha Amar léegi nag euh, Serigne Moustapha ñu dugg ci suñu question bu mujj bi muy ñaareelu question bi yaa ngi Mbàkke dëkk Mbàkke jiite fi mouvement tey Mbàkke ki ko jiite muy maire bi ñu koy wax galo Ba galo Ba yaakaar naa ne kenn umpalewu ko ci Mbàkke fi mu toll nii ndax bu ñuy xool i bëggee nekkoon na fi mbeeru Mbàkke yàgg fi lool jaar na fi def na li mu war a def abdou mbake ñew abdou mbake ndaw ñew na fi mom tamit nek mbeerum mbake def fi lim fi wara def tay tamit galo ba ñew na fi def fi lo xamantene ni lu reuy la yakarna lo xamantene ni yeen ñepp te seen beut no jangate galo ba ak session bi bi mu yoré mbake ba légui euh, jërëjëf bay gumba man euh, bo may wax ci monsieur le maire dama ci sawar ba paré wax nga tamit wax bu graw parce que da nga ne lim def mbake Def Mbacke mooy wax boo xamante ni wax bu garaaw la en tant que journaliste mais. mais bien sûr Ba def na fi lu rëy Mbacke teg nga ci sa bët. sa morom teg nga ci sa nga ci mais may wax def Mbacke. Mbacke amul woon stade bu baax. waaw ak grâce à Gallo Ba stade baa nga léegi loolu rek ah. lamp yi Mbacke dëkk bi lamp dëkk baa ngi leer nañ. Mbacke ñëpp xam nañ ko dafa lëndëmoon dëkk bu bi euh, euh, euh, Ba ba tourné ak leer comme Touba Mbacke comme Touba ci leer. Ba fi def. mais Baye Goumba Gallo Ba def na fi dara xam nga stade bu ñuy wax stade la fi def defu fi stade defu ko fi. ku defee stade. mais stade bi ab Abdou Mbacké Ndaw moo ko moo ko moo ko tàmbali moo ko doon defar ci Abdou Mbacké Ndaw euh, dafa def lu am solo dafa def lu ama am solo nit bu defee lu am solo danga nga koy wax parce que fee nga xamante ni fa lañ defoon euh, footballukaay ba muy stade ba dafa jàkkaarloo. armeer ya armeer yi ñu gis ne loolu rafetul rafetul ci ab jullit te ñun ay jullit lañ ba pare Touba mooy Mbàkke Mbàkke mooy Touba mu ne kon nañ leen fexee jël foofee toxal stade bi wutal ko feneen fu ñu ko def ca foofu ñu def ko kër Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kon jii dafay jàpp jàpp naa loolu moo mujj am ba foofee ñu doon footballé tey boo fa demee na ko nañ ko taxaw sëñ Mountakha taxawu ko ak Baye fa yi nga xamante ni moom la denk liggéey bi yaakaar naa ñu ngi koy liggéey liggéey bu mucc ayib ñu fas yéene ko def kër Cheikh Ahmadou Bamba na Rasoul foofu la stade bi nekkoon ci liñ ko wane nag yóbbu ko jàmm gën Abdou Mbacke Ndaw moo ko fa def kon bu ñu waxee ne moom ñëw na def na fi dara mais xaj na lu muy ñëw di eggale la mais daanaka bi fi Abdou Mbacke Ndaw di nekk état sëñ bi continuer la aussi. waaw mais mais loolu laay wax. Ah, loolu laay mais mais kii fekk na kii defar ba pare daa pare. non parewul woon moom bi moom parewul. non ay tapis la fa lal pare woon na xam nga pare mooy. fondement bi fi dem daanaka ay fondation la fi bàyyeeg yooyu rek. xam nga pare mooy pare mooy nit loo xamante ni defar nga ko ba pare yaa ndey peinture ak i raax rek la fa bu dee bu doon tey kër la moom la ma ngay ma ngay waaj a laa lay wax waaye kër gi am na ku ko tabax am na ku ko fondement am na ku ko tabax mais am na ku ko fondement ñun xaaruñu woon loolu ci moom. et puis élection locale yi dafa taxaw fii ci gaar bi expliquer ñu lu leer balaa six mois la wax ne stade bi danañ ko mottali li ci matul woon ngeen tàmbali nawetaan yi di ñëw da ngeen ko fa fubal. stade bi pare na il paraît pare na ah. mais mais mais ko fa fubal. Ah, loolu moom xëy na ñu yor football beeg yooyu ñoo jékki non non non non est-ce que est-ce que inauguré nañ ko pour ñu mën ko inauguré inauguré guñ ko dañuy pour mën ko inauguré non ñun ñun campagne do waa Mbàkke doxuñ ci ay campagne bu dee ci lool la ñuy xaar jàpp naa ne insprit bi Mbàkke am jamono yii ñuy wax nii euh, doxuñ ci ay ay ay ay ay ay ay campagne parce que Mbàkke dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu naqaree politique la mais dafa nekk dëkk boo xamante ni maanaam benn yoon nga leen di nax waaye du ñaar. yow daal jàpp nga ne Gallo Ba kon def fi dara daal Mbàkke bi. non de bi mu fi toogee léegi man gisuma vraiment loo xam ne dañu maire moo ko fi def ngir jàppale ko waa Mbàkke. parce que booy xool tamit du contre ko du dara ñu ci bëri jàpp nañ ne euh, dañoo jubóo lool day de sama xarit la man ak moom ñoo bokk bàyyi waaw ah, sama xarit la ñoo bokk bàyyi dañuy toog dañuy waxtaan mais nag dëkk bi nag képp kuñ ko dénk. na fi war a taxawee taxawee ko fi la nga war a def defoo ko fi mais da nga ko dégg dañ la koy wax parce que da ngaa ñëw laaj suñu baat askan wi wóolu la am confiance yow jox la seen baat kon war nga leen a mën a teg lu leer seen loxo def na fi lu toll ak ñaari at ak genn wàll xañ mais boobaak léegi en tant que DG après ñu ne ministre ca chantier yi gën a mag ci Sénégal ñu ne yaay directeur ba muy Arena yi ak euh, euh, stade lay Wade. budget bi di génn lu bëree bëree bëri ay ci am yëpp mais sama dëkk nag dinaa xañ na war naa leen war naa leen mën a satisfaire dara. war naa leen a mën a ba aussi Moustapha jàmbaar la ndax xaaju Mbàkke yëpp yóbbu na leen fonction publique ñuy liggéey. Ah, loolu tamit effort bu rëy la il faut nga nangul ko ko. no loolu moom dama ciy bég sama xol da cee sedd parce que man euh, lépp loo xamante ni nit defal na ko doomu Mbàkke rek damay apprécier ba pare dama lay sant dama lay gërëm mais doomu Mbàkke yi am na leneen luñ ñu gën a soxla tamit. mooy lan. ku leen taxaw ci dëkk bi. daanu ci ban fànn. non daanu dajul fépp. galo mën na jël kii du jël ke mën na dugg ci kër jël fa kenn bàyyi kenn mën na dugg ci koñ bi jël fa kenn bàyyi kenn kooko kaas Sénégal yi noonu la ñuy doxee noonu la ñuy dundee mais loolu lu baax la lu am solo la mais tamit maa ngi koy ñaan. bu demee bay jëlati bu fekkente ne sax trois mois yi ci des dina toogaat bu demee bay jëlati maa ngi koy ñaan ñi muy jël ñu nekk ay doomu Mbàkke ñu jox leen ay poste yoo xamante ni bàyyi gumba dinañ fa mën a liggéeye gis ca seen bopp waaye doon ay chauffeur ak i baalekatu bureau. Mm. yow daal Moustapha comme suñu Moustapha ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm comme li nga wax ci Gallo Ba ba tey aussi Gallo Ba biñ koy fal daanaka euh, ñetti at lay tollool. ñetti at waa Mbàkke fal ko ñetti at yooyu xamoon nañ ne Macky Sall ñetti at moo ko dese ci réew mi waa Mbàkke folli Abdou Mbàkke Ndaw fal galo Ba kon am na lu taxoon waa Mbàkke fal galo Ba loolu ndax mën nga ñu ci indil ay jàngat lan moo taxoon waa fal Gallo Ba bi bi mu leen leeree ne Macky Sall li muy ñetti at moo ko dese ci réew mi. erreur de vote moo ci am. yow erreur nga ko jàppee est-ce que. est si erreur de vote am na ci am na ci. et puis moom tamit par exemple ñi ko jàppale ñëpp ba mu falu tey yu ci bëree bëri am na ñu ma ci xam ñu bëri mais dañoo mel ne ñu xaw a découragé tuuti parce que gor ci wax ci. est-ce que jàppoon ne ñoom waa Mbacke bi ñu koy fal. dañoo yaakaaroon ne Gallo Ba mii comme que euh, euh, am na sens mi ngi ministre mi ngi jiite fonction publique. nekk ci état loolu mooy erreur de maanaam ne euh, bëggoon nañ mu apporter leen lu rëy. moo tax ñu ñu ñu sanctionné Abdou Mbacké Ndaw teg ko fi loolu mooy erreur jàppoon loolu est ce maanaam loolu non non xam nga loolu lañ defoon Abdoulaye Wade ba teg fi sawaay mi ah loolu lañ defoon Abdoulaye Wade ba teg fi sawaay mi toog mais euh, bu ñu xësee ba mer wala ñu mere kenn da ngay gëmm doo xam looy def ak wax fekk yow ki ngay sanctionné sax moo gën ci yow mais ñun Mbacké loolu dal nañu loolu daal nañu naa Gallo moo ak prérogative pour mën a non mais ndax moom mi ngi ci gouvernement bi ci Abdou Mbacké Ndaw nag nekkul woon ci état bi waaw mais loolu loolu laa la wax mooy erreur bi ñu def parce que ñun calculer wuñu woon ne kii 6 mois ko fi des ak 7 mois ba pare biñ koy fal jàpp nañu ci état la nekk war naa mën a defar dëkk bii di Mbacké non non même moom moom ba mu dëkkee Mbacké rek nekk ci état rek nekk DG ci la waroon a tàmbalee defar Mbacké ca bañ cee xaar boobaa moom du génn di laaj carte kenn kenn du wax kenn wooteel ma ñun ñooy génn wooteel ko parce que boobu mi ngi jàppale waa Mbacke mais mi ngi dimbali waa Mbacke kon waa Mbacke ñoo koy wooteel ci du wax wooteel leen ma. léegi nag ñu jàpp ne comme état la nekk euh, xañ na bu ñu ko defee maire dina soppi dëkk bi ndax Mbacke bëgg nañ ku ko soppi mais loolu mooy erreur bu mag bi est-ce que kii ñuy jox dëkk bi jëlu dëkk bi da ngi lay escalier yu mën a yéeg pour dem ministre pour ñu ko ministre wala ki jox dëkk bi. est-ce que bëggul ay ndombay tànk rek pour mu am ko mën a jaar ci Mbàkke mais man damaa gis ne wax naa leen ko ci élection yi nee naa leen maire week nañ leen ko bàyyi maire bi nga am na nekk sa dëkk dëkkandoo yow donte ne sax am naa ki euh, kii yoo ni liggéeyam may ko ko. yaatu na de waaw liggéeyam may ko ko d'accord mais nag na xam euh, réalité yi na xam maanaam dëkk bi seen i bëgg-bëgg xam waa dëkk bi li ñuy dund mais man du nekk maire boo xamante ni vraiment. sama njaboot boo demoon sama kër doo fekkeen man sa bu ma nekkoon maire ñu naan ma monsieur le maire sama soxna day dem marché di nduggi bu taw bi ñëwee day xuus ci ndox mi sama doom école école école 2 lay jànge wala Mbacké 3 buy def bac day dem lycée man noonu laay doxee ko mais nag du ma ñëw nag ci Mbacké dëkk bi war na ne dëkk bi ñor na ma bëgg naa dëkk bi ca sama dara nekkul ci dëkk bi kon loolu mënuñu comprendre par weekend ngay ñëw weekend munoo xam luy xew Mbacké noo ko xam te ñi lay informé di la wax li liñ lay wax du doon dëgg ñu ci baree bari ñi ngi koy wax mais dañ koy nax di ko jay mais liñ koy wax du dëgg mais dafa war a xoolaat entourage am xool ñi ko wër xool staff loolu ñuy wax staff ñi ko wër di wax ak moom ba xam renseignement yi ñu koy jox dëgg la wala du dëgg c'est parce que moom fal nañ ko fal nañ ko maire même pas six mois waa Mbacké sanctionné ko fal maire sortant bi ñu indiwaat ko fal ko Abdou n'est Ndaw député pourtant même pas six mois là alors, six mois une ñu folli maire maire six mois rek dox ci diggante bi ñu folli waat la ci six mois yi jël maire bobé ñu folli won def ko député. mais gisoo ne nak kon sanction. non non dafa gatt dafa mais ju jours jours dëkk bu naqari politique ca mun leen mënuñu leen nax ñaari yoon. yaag sa mouvement yéen ngi waajal présidentiel yi. ñoo ngi koy waaj ñu nag waa mouvement ànd euh, suqali Mbàkke euh, di nuyu bu baax sëñ Abdoulaye Hat Amar vraiment jàmbaar ci dëkk bi moom tamit am na taxawaay bu am solo ci dëkk bi ku bëgg dëkk bi la moom tamit ñoo ngi koy nuyu bu baax gis nañ liggéey bi ak ànd gi mu ànd ci kuréel gi ak ni muy taxawoo waa kuréel gi. Euh, ñoo ngi ci waajal élection yi bu baax a baax a baax ca nag dana wuute parce que politiciens yi bu événement yi jotee dañuy ñëw di def porte à porte mais man tamit maa ngi préparer porte à porte influencer euh, ba pare itam fexe rassemblement bi ñu rassembler waxtaan ak nit ñi def porte à porte xamal leen li xew mag ñi sax ñoo ma gën a yitteel. jeunesse bi ndaw ñi xam nañ mais mag ñi maire yeeg paa yi dinaa waxtaan ak ñoom jàlle samay communication à la rajo à la télévision def porte à kër gu ñu dugg dinaa fa dugg gënuñu maa xam dëkk bi gënuñu maa xam commune Mbacké gënuñu maa xam département Mbacké lu ñu am ci ay moyens am naa ko lu ñu man man naa ko dinaa taxaw fu ñu taxaw dinaa fa taxaw lépp loo xamante ni def nañ ko jaarul yoon ci réew mi jaarul yoon ci dëkk bii di Mbacké jaar yoon ci département Mbacké bi gën a dee ci Sénégal danañ fa taxaw lépp lu ñu suul ñun danañ ko sulli teg fële xamal leen ne ëpp leen ñu xam-xam dàqu leen ñoo jàng leen ñoo xam am réew ni muy doxee. koo àndal. non actuellement euh, de euh, nekkuñu ñoo xam ne mouvement boo xamante ni dañ naan la kii lañ àndal wala kii lañ ah, àndal. sëñ bi loolu mais ñàkk nag. non non ci politique ñu jëm ci présidentiel. non présidentiel. xam nga mouvement bu toll noonu. di waaj yow kon porte à porte yi ngay def. xam nga xam nga Baye ki ñi andal lool après la quoi xam la motax mu doon après moy euh élection yoy jëm ci xamugo candidat yi tay lool loolu mënuma la non non candidat la non tay man na ne ne fii diw laa àndal wala diiw ak diiw ak diw Amadou Ba candidat la Amadou Amadou Ba non non waaw waaw candidat la ah bob bob de xamna naa Khalifa Sall candidat la non non Karim wad candidat la boobu moom benn leeruma ci parce que Sénégal moy dëkk bo xamanteni yandek ak gouvernement bi ñu nek régime bi ñu nek dañuy signaler gos jàddu droite kuy signaler gauche yi jàddu droite nag vraiment mënuma topp sa ginnaaw damay bàyyi ba nga signaler ba jàddu ma jàddu ànd ak yow na nit ki kañ boo koy jàppale ñu dem ba deux mois des ci présidentielles yi yow ngay waajal say porte à porte léegi boo duggee ci kër nit ñi loolu leen di wax yow non euh, lool loolu du wees c'est parce que campagne mii fi ci biir campagne bi lay ànd ak ñoom fu ñu dugg ma dugg fa ci biir campagne bi lay ànd ak ñoom fu ñu teg seen tànk teg fa seen biir campagne bu ñëwee di nga mën a xam kan ak kan kan mooy doon candidat mais nag actuellement état ni muy doxee en tant intellectuel bu toll na yow sëñ bi yow tamit jiite mouvement bu toll noonu yaa ngi ci dëkk bi ñu dem ba présidentiel yi des deux mois mënagoo xam koy àndal loolu kon. loolu loolu xam naa doy waar. non non non loolu c'est parce que nee naa la man mën na ma ànd ak diw sax ne ko yow doo bokk. <laughs> mais yaa ngi xam nga fi ñu doon doo bokk doo bokk comme comme dem naan doo bokk comme dem naan ndoxum rëb bi na ñoo yem ñoom ni ñuy doxalee da ngay bokk ak doo bokk dañuy xool rek ki leen neex ak ki leen neexul mais nak ñoo ngi diglu wa conseil constitutionnel ba ñu wax ñu ne. légui Amadou mom mom leer na est ce que wa wa wa wa wa wa Amadou Amadou mom Amadou mom <laughs> Amadou bay leer parce que ci des imbi la bok. ci gis nañ ñi ñi doxé àndoog mom non Amadou. Hmm. ci état la bok àndoog mom la la wax. non non mais moy moy lima la wax rek bala may xam kan lay andal il faut ñu dem ba affaire yi wacc ñu xam ñan ñoo signé candidat ñu xol sen programme. xool ki ci gën programme mais mais ñu ànd ak moom liggéey parce que ñun li lu baax li lañ bëgg ci réew mi ak ci dëkk bi. sa kàddu yu mujj sëñ bi. noo ngi sant di sant waa Ansar TV di sëñ Serigne Khadim Rasoul Amar bi ko jiitee nekk ci bopp bi ba ko ca mujj di di sant ak ziar itam euh, Serigne bàyyi Goumba euh, Amar ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di nuy tamit sunu journaliste bi sëñ di gumba euh, Goumba ñoo ngi lay sant yow bi bu baax a baax vraiment bég nañ ci question yi. Euh, ak euh, invitation bi sunu xol sedd na ci euh, di sant képp koo xamante ni yaa ngi seetaan di ñu suivre di sant ak gërëm itam waa dëkk bi yëpp di Mbàkke ak département bu Mbàkke ak waa commune bu Mbàkke ndax vraiment gis nañ seen taxawaay gis nañ ñu bëgg seenu dëkk lañ gis nañ ne tamit ñu taxaw ci seenu bëkk lañ ci am nañ ci fulla ak fayda di sant itam képp koo xamante ni rek jàpp nga ci ndoxum Mbàkke mi ba ndox mi yegg si fii ndax comme ni ma leen ko waxee ñoom tey ñoo leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax ngi sant ñëpp di sant waa mouvement ànd suqali Mbàkke wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Moustapha Amar jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloo nag seen télévision Ansar TV ci caméra bi Serigne Khadim Amar ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje semaine bi di ñëw ci seen deuxième édition asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Anza TV mbokk yi mooy seen plateforme bi ngeen doon wër bis ni ki tey lépp la ngeen itteewoo ci ñëw leen ak si bu ngeen fi ñëwee dootu leen ko rëccu Anza TV ci information générale tegu si maanute boole ko professionnalisme bu wér peng ay information société wàllub religion jox nañ ko akam ba mat sëkk waaye tamit politique économie dañuy amal ay direct lépp luy événement si mim réew rawat na si région de Diourbel département de Mbacké ak Touba Anza TV gaaw leen gaaw ngeen cloche bi su ko defee ngeen doon maam Abonné, abonnés di am en temps réel tous les événements Anza TV bottez sur nos page Facebook Anza TV sur Instagram nous sommes présents dans toutes les plateformes Anza TV une chaîne bi ngeen doon xaar ak sina boo renseignements mën ngeen 426 30 71